Mon ci bopam daf ko wara éviter bu fekkente ne instant bi mi ngi ci li nga xamni mom modi euh, euh, pouvoir bi ndax yone nekul ben instrument bo xamante ni si dañ ko utiliser ngir euh, di ci menacer ndax yone daf wara appliquer li nga xamni mom moy le droit le message fort des récentes assises de la justice ne doit pas être brouillé manam

dafa am ñu fi nekkoon pendant douze ans mais loolu tamit dama jàpp ni c'est le minimum. Mhm. fukki at ak ñaar nga nekk ko yor moomi lu askan bi mosoo cee raam mais xoolal nationale bi ni chaque fois euh, Guy Marius Sagna daf koy fàttali que ni euh, président Amadou Mame Diop euh, ñetti weer yu ne daf leen doon rendre compte. ci koppar gi nga xam ne moom la jiite. Mhm. mais defu ko mais loolu pour man ça mérite quand même ñu ñu ñu ñu ñu wax ci parce que momelu askan bi la dulu kenn mom dulu ñaar mom hmm. askan bi ñoko mom moom te askan bi dañu euh am droit ñu leen di rendre compte légui nak yow mëno fi tok fukki at ak ñaar yoo xamante ni seeni euh, nga paré ñu leen nak il faut que lool moy la raison des comptes il faut que nga ñew nga wax ñu euh, euh, manam yow ndom bay tank yi ngi fi jot yor fi nga jot jaar nga wax ñu nak nga ko yoré won ak nak nga doxale won copar gi nga xamni ni sénégalais ñoo doon natt ci seen ay dagg ci seen ay poste bi nga xam ne am nañu ko muy taxe impo yi nga xam ne ñu koy dagg ñu koy fay ñu koy dajale di ko jox état ngir mu ci mën a fonctionner ci loolu la ñu doon dagg yow ñu jox la yow mu yor ministère des sports yow mu yor euh, ministère euh, ministère de la culture ñu jox la ci yow mu yor ministère de la santé euh, ainsi de suite ainsi de suite tey loolu nag dama jàpp ni bu fekkente ni yor nga ko ba jàll tey li nga xam ni rek moom moo ci gën a yell mooy ñu daaje lay euh, euh, voilà gis nga ki nga xam mooy Abdou Mbow. Euh, Abass l'honorable député Abdou Mbow mi ngi noonu. Abass Fall moom mi nga xam ni moom moo daal di déposé li nga xam ni kon moom moo di. boobu la motion de censure mi ngi noonu di nuyoo ak ki leen di <laughs> Ami Ndiaye ñii bi mais itam di nuyoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di ses collègues député moom mi nga xam ne moom mooy Abdou Mbow dem nag génn na foofu la ci émission bu faram-fàccee bu Pape Ngagne Ndiaye indi ci ay leeral.

xëy na maanaam dañu bëgg a nekk di indi yenn tardement yi rek mais xëy na njëriñam wala kon gisuñu.

Euh, depuis yi nga xam ne gëjoon nañ leen a gis sax mën nañu wax ne tey ñëw nañu euh, ci li nga xam ne moo ouverture de la session extraordinaire ndax seen nañu Abbas Fall sànq rek moom itam mi saafonteek ak ñenn ci ay honorable député Amadou Ba vient juste d'arriver euh, Abdou Mbow ak ñam wàndal ña ngay saafonte di nuyoo seen biir waaye itam Ayib Daffé mom mi nga xamné mom mo euh, jité groupe parlementaire bu yewé askan wi moom itam euh, ñu ngi koy euh, xarandi voilà plutôt fi nga xamné ne ci assemblée nationale bi leen ndax moom yegg seegul fi nga xamné mom moy ci bërëb bile bu ko défé itam ñu daldi mëna tambali li nga xamné mo ouverture de la session extraordinaire ci année 2024 ponk ñu war waxtani nak bari lool ndax nag tout est lié sur li nga xamné mom moy ci walu politique ndax bu xolé euh, ci euh, nañu euh, jëlé li nga xamné mom moy décret mom ju touré mu jël décret daldi dindi li nga xamné ña fa nekkoon ci au conseil des collectivités territoriales ak itam li nga xamné mom moy conseil économique social environnemental way itam dina jël benen décret daldi di dissoudre li nga xamné moy assemblée nationale le 12 septembre 2024 xamna né du ñak tay ñenn ci ay député daal di ci walu wi ni mel naam ñom naam règlement intérieur bi nga xam bon euh, une plainte est déposée devant le procureur de la République pour faux usage de faux euh, ñu sukkandikoo kon ci journal boobu la nga xam ne moom moo di libération parce que nag euh, loolu dama jàpp ni dafay yomb ñu bëgg koo bàyyi noonu mu mu mu jàll ba tax kon euh, daaj nañu déposer une plainte pour faux usage de faux euh, devant le procureur de la république maanaam règlement intérieur bi nga xam ni la leen le premier ministre Ousmane Sonko waxoon dañ ko falsifié maanaam kon assemblée nationale dafa nekk di euh, fonctionner pendant vingt deux mois yoo xamante ne si nii ak benn réglement intérieur boo xamante ni si nii en tout cas dëppoo ko euh, loole nag euh, ñu def te ñoom ñu ci Euh, dox te xam ni lii ñu nekk euh, di di doxee maanaam teguwul ci yoon loolu nag maanaam dañ leen cee daal di rek euh, porter plainte mu nekk mbirum faux et usage de faux jamono ji bu ñu sukkandikoo ci journal boobu la nga xam ni moom moo di ci sànq maa ngi koy wax honorable député Mamadou Lamine Diallo mi nga xam national moom méritoowul naan dafay censurer kenn parce que moom jëmi boppam sax lañu ñi nga xam ni dañu ko <laughs> dañu ko ko euh, war a euh, tase jamono gi ba tax kon euh, loole nag nekk beneen mbir boo xam ne xëy na après des na ci gën a ñëw mel ni kay jamono gi dina am liggéey goo xam ni dina ko doy sëkk parce que lii moo fi gis nii ak yenn waaw bu Pastef na xam waa Pastef même su fekkente ni lu yàgg ci assemblée nationale bi mais xam naa ne ku ñuy recon ku ñuy reconduire la euh, mu daal euh, ñëwaat fii li nga xam ne moom moo di euh, ci assemblée nationale bi dafay sax ak moom man dama jàpp ni tey ñi ci ëpp ci ñooñu sax dañuy teey dina leer mais da koy teg lépp ci xam-xam tam euh, dugg si ne fii la nga xam ni moom moo di ci assemblée nationale bi kon moment bi mënees na wax ni euh, ki ngi xaarandi euh, moom mooy ki la nga xam ni moom mooy le président de l'assemblée nationale muy Amadou mooy que genre président bi la ñu amoon xam ni daal euh, amee na euh, prérogative yoo xamante ne si lu mu bëgg a def man na ko def parce que tey président Diomaye euh, am na nu nu yëf yi doon demee tey pour mu contourner ñii ci motion de censure bi dina xaw a jafe lool moo tax la fois passée gis nañu Ousmane Sonko ni non seulement bëgg nañu amal ay doole bi nga xam ni moom la premier ministre am fii léegi ci Sénégal comme président Bassirou Diomaye Diakhar